waxtaanu suba waxtaanu jataay la bu leen rajo leeral fm bu Louga 104.6 di baaxe suba su ne bi ci dalal kenn ci boroom xam-xami lislaam yi muy waxtaan ci tomb yu fasantikoo yoo xam ne dina jëriñ jaam bi ci bëccëgam bi yépp saa yoo yeewoo war nga am lu lay di la leeralal sa yoonu jëm ci borom bi subhaanahu wa taala ànd leen ak rajo leeral fm bu Louga 104.6 suba bu ne bu 7 jotee maanaam juróom ñaari waxtu ci suba ci jataay bi ñuy woowee waxtaanu suba defal waxtaanu suba fii rajo leeral fm bu Louga muy sab yóbbal bis bu ne bis bu ne wa ilal xisaabi fadhabi al xashru haqqun faxshari qabla al mamaati fa innahu yawmu rrujuu'i li tarja'i bismillahi rrahmani rrahim alhamdulillah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu eh, ndaka la ñuy def ba doon xarit yàlla ma ne lii lu jara lu jara wut la de moom rek a jara wut sax xoolal tey ci àdduna rek ki nga xam ne dafa doon xaritu buur bi wàccuwaay ba muy daal di am ci réew moom mi nga xam ne moom moo fay xaritu buur ba waxuma la moom ci boppam rek waaye ay mbokkam ak ay xameem ak ñéppam ban wàccuwaay lañuy daal di am ca moomee réew ndax ne moom mooy xaritu buur ba heure bu soxlaa buur bi rek day mën a dugg yan liggéey la fa mën a am yoo xam ne la mu ko mën a indil ci alal kenn xam nu mu toll waxuma la moom sax waaye képp ku ko xam sax yan problème la fa mën a régler ndax xaritoo gim xaritoo buur ba kon na ku xaritoog buuru asamaan ak suuf kon ban wàccuwaay ngay am yan mbir nga mën a am nit bu xaritoog yow yëm gën a fonk la lay jagleel di la ko jox moo tax dangay gis nit koo xam ne day jox nit ñi waaye bu xarit ba agsee nag kam gën a xaritool moom nag bu koy jox moom du ko jox la bokk la muy jox ña ca des da koy jox la mu gën a fonk jox ko la mu gën a la gën a rëy fa moom nga gis koo xam ne gan ñi bu ñëwee ku ne da lay dëkkal waaye kam gën a xaritool gën koo fonk moom bu agsee fa gën a foor ci moom foofa la koy dëkkal wàccuwaay ba gën a foor moom la koy jox temps mit la ci ëpp moom la koy jox moom lay gën a ittewoo ci yeneen gan ñi ci des ndax dafa xaritoog moom bu dee ne xaritoog nit mooy indi loolu askumaa nag xaritoog borom bi tabaraka wa taala borom bi jàppee la xarit ba nga xam ne danga koy neex lool sa mbir neex ko mu bëgg la bay seedeeloo malaaka yi naan leen kii de bëgg naa ko waaye ma ne ko am loolu ko am loolu loo manqué te ci sa àdduna waaye nag loolu jaam bee koy wut jaam bi moo koy wut ba keroog yàlla di ko jox bu ko joxoon it mu di ko gën a wut ba mu koy gën a yokk kon ci démb doon naa wax xadis boobu yeneen bi sallallahu alayhi di wax lan mooy yoonu am ko mooy topp farata yi jëfi farata yi bàyyi tere yi ak nag kursu ci yeneen yi yàlla bëgg lii gën a doon yoonoo mooy bëgg yàlla li gën a doon yoonu am xaritoog yàlla mooy bëgg yàlla yàlla toujours fi ko toll rek moom it fi la lay toll yàlla fan la la toll ci sa xol ndaka nga bëggee yàlla sa bëgg yàlla bu dee dafa doon bëgg gu dëggu ba yàlla jaral la lu ne yàlla gënal la lu ne la yàlla bëgg moom ngay bëgg lu yàlla bañ nga bañ ko loolu loo ci gën a dëggu rek na la leer ne suñ borom tabaraka wa daal lay fekk si moo tax ku dëggu lool lool lool ci sa bëgg yàlla yàlla jaral lu ne da nga am xaritoog yàlla parce que yàlla nit du dëggu ci bëgg gam koy bëgg ba jaral ko lu ne te yàlla du ko bëgg déedéet yàlla moom ni ngay jëflanteeg moom noonu lay jëflanteeg yow boo dawee jëm ci moom moom day daw lu gën a foor jëm ci yow boo ko bëggee da gën a bëgg te moom bëggee la moo gën a foor yow sa bos moom bu lay bëgg na mu lay bëggee mu gën a foor yow na nga koy bëggee yow ndax yàlla dafa tedd kon loolu mooy point bi ëpp solo ci kii wut xaritoog yàlla mooy nag jéem a dëgëral mbëggeelam ci yàlla yàlla mi nga xam ne moo la bind sàkk la amoo woon mu amal la lépp loo xam ne am nga ko ci xéewal moom moo la ko jox wa mi bikum min ni'matin fa min lépp loo xam ne lu metti la lu mas a dal sa kaw ba teggi yàlla rek moo ko teggi woon kon amul benn jafe yu jafe boo mas a dugg ba génn ca lu dul ne la ci génnee woon mooy borom bi moo tax mu ne summa ida massakum dur fa taj taj'arun summa ida kashafa durra ankum gis nga moo koy dindi boobaa nag nit ñi ñaari xaaj la ñuy xam ne moom bu borom bi dindee la ko daloon ciy jafe da koy sant ak koo xam ne nag da xarab di ko bokkaale keneen nga yëg ne amul benn fépp ceeb woo fi lekk wala dara ci oxygène woo fi nooyi wala dara dara dara ci ak xéewal moo xam looy sol la walla lu man di doon lu dul ni borom bi moo la ko jox ci gratuit ne jëndoo ko ci moom sa dërëm borom bi soxlawu ko soxlawul nga jox ko moom moo lay jox ku mel nii de moom yomb naa bëgg ba pare nag ànd ak loolu ngay def ay bàkkaar njuumte tey léegi-léegi nga dégg dugg ci bàkkaar boo xam ne maara day taali buy alage la téewul borom bi naan la teg maa jéggulu ma jéggal la boo may jéggulu rek ma di la jéggal yenn yee sax du xaar nga jéggulu ko moom moo lay daal di jéggal automatiquement bàkkaar yi lu mu rëy rëy rëy rëy lii nga def lu mu garaaw garaaw garaaw booy tuub mu daal la koy jéggal borom bi dafa laa bëgg moom moo tax day bëgg nga def effort rek ba mën laa dugal ci mbëggeelam ba mën laa dugal ci yërmandeem moo tax boo defee benn bu baax fukk la koy la koy ful benn nga def yow moom mu def ko fukk boo defee benn bu bon nag du ko gaaw a bind de du wax malaaka yi duñ ko gaaw a bind danaan bàyyi leen ko tuuti ndax dana jéeg tuubam déet bu tuubul bu ñu koy bind benn lañ koy bind te benn boobu boo tuubee ñu effacé ko ah ki ki ki def lii de ku bëgg ku ku ku la bëgg a bëgg la ku la bëgg yërëm la kii def lii wallaahi bëggu mbugal daa bëgg nga jege ko daa bëgg da bëgg a yërëm moo tax daa bokk ci turi yàlla yi alxafuur mooy koo xam ne da jéggal moom daa bëgg di jéggale rek jéggale kooku kooku mbiram la moom alwaduud koo xam ne da lay sopp sopplu maam borom bi de yi muy def yëpp boo ko xoolee rek dafay neex a sopp moom dafa dafay soppee daal dafa bëgg ku dafay bëgge léegi nag jaam yi képp ku ci bàyyi xel loolu rek gis borom bi ni muy jëflante ak yow rek da nga yëg ni kii de bëgg na la ba pare te demagoo fenn mu des nag nga def effort bu ndaw rek mu daal lay gën a bëgg kon da ngay tàllal sa lox borom bi tabaraka wa taala nga tuub foofu ngay tàmbalee borom bi parce que da nit ku ne nag dafa yor ay bàkkaar yoo xam ne bàkkaar yooyu mooy dox digganteem ak borom bi borom bi lim lay bëgg bëgg bëgg li muy bëgg nga diggu ci yërmaande yépp bàkkaar yii mooy tax nag mu lay bañ ndax nit ki ci ay jikko yu muy jikkowoo ay jëf yu salte yu muy def ay mbir yoo xam ne yoo xam ne yu borom bi bañ la yooyu fii mi ngi ci nag li ko borom bi bëgg yépp ak li muy bëgg di ko dugal ci yërmande yépp yooyu moo koy baare kon tàllalal sa loxo nga tuub sa digganteeg sa borom ba dindi baaraas yooyu bàkkaar yooyu na fi dañ tuub gi nag mooy lan mooy nga jaayanteeg sa borom ci ne lii moom bàkkaar yi dama koy bàyyi bu dee ay jikko yu ñaaw nga ne dama koy bàyyi bu ko defee yi yi yi doon naq yi doon taxoon ba yàlla di la mere yëpp jóg na fi léegi parce que yàlla moom tuub googu ci boppam da cee kontaan da ciy kontaan kontaan bu metti bu ko defee bàyyi nga yi yi yi yim la doon meree ngët nag jublu nag ci yim lay yim lay bëgge nag bu dee ay jikko la woon bépp jikko boo xam ne da doon tax borom bi di la mere nga effacé ko daal di koy wuutal nag jikko boo xam ne day tax borom bi di la bëgg bu dee ak càggante la woon ci jaamu yàlla ngay jéem a def effort nag bu doon def ay yu xaraam la nga bàyyi ko wuutal ko jëf yu jëf yu baax mooy li ñuy wax tëj paas ubbi paas ubbi waat beneen paas bu bees nee na dund gi nag dama bëgg doon ko xam ne damay daw jëm ci yàlla au lieu que may daw jëm ci seytaane seytaane di ma woo naan ma waa ñëwal man maay sa waay nga xam ne seytaane mooy sab noon yàlla mooy ki nga xam ne moo la bëgg seytaane bëggu la ngay xool lépp lu naqari rek nga di ko lépp lu neex yàlla rek nga nekk ca yoon woowa boo ko boolee ñaan ak dëggu ci wàllu woowu bay boo nga xam ne aw nga ci yoonu autoroute xaritoog yàlla yàlla mu amul ku daw jëm ci moom lu dul ne ah mu daw jëm ci yow amul kuy tuub tuub gu dëggu lu dul ne mu nangul la sa tuub ga tàmbali na di la taw fii xelal ngay dem ngay ngay yéeg étape par étape di dem te moom yàlla bu la tàmbalee jox dalay jox ba jox la lu kawe sa njort da ubbil bunt yoo xam ne mosoo xam ne ndekki bunt yu mel ni yàlla dana ko ubbi ndax effort boo def rek waaye nag mbir yépp nag mooy dangay ngay yaw yaay njëkk a def effort moo tax mu ne walladina jahadu fii naa lanahdiyannahum subulana kon yaay jëkk def effort moo ne ñi nga xam ne ñi ngi jéem a góorgóorlu walladina jahadu fii naa di a góorgóorlu ci aw ci suñu yoon di ci jéem a góorgóorlu mu ne lanahdiyannahum subulana yàlla dina dinañ leen gindi ci suñu yoon mooy teg la ci yoonu siraatul mustaqim bi nag di la tawfiqalal ngay dem waaye boo deful moom dalay bàyyi foofa na laa laa yughayyiru maa bi qawmin hattaa yughayyiru maa bi anfusihim kon defal effort yaay njëkk a jóg jaayanteeg borom bi tàmbalee ci tuub tuub gu dëggu tàmbale nag ci jëf-jëf yu baax yi tàmbale ci rawant bi tàmbale di bëgg borom bi di la gis toujours ci melokaan wa nga wam bëgg moom na lay gis toujours yaa ngi tudd yàlla na lay gis yaa ngi faj aajoy nit ñi na lay gis nga yaa ngi rafetal na lay gis ci bépp jikko bu mu bëgg moom borom tabaaraka taala jikko yi yàlla bëggul fexeel ba bu mu la ci gis benn te li ci ëpp solo mooy del bàyyi xel sa boroom ba foo man di nekk del xam ne léegi nekkul ne nit ñi ñoom ngay jëflanteel ñoom ñoo lay surveiller ñoo lay atte ndax yow ku baax nga ku baaxul waaye nga yëg ni am na ko xam ne mi ngi ne la jàkk te xam sa mbir te mënoo koo nëbbutu bu ko defee ngay koy bàyyi xel booy wax moom ngay bàyyi xel boo wéetee moom ngay bàyyi xel loo nar a def moom nga ci bàyyi xel te kooka nga bëgg mu doon sa xarit waaye ndaka nga bëgg sa borom doon sa xarit ba pare nga bëgg ko njuuñ njaat nga bëgg ko jouer politique du dem parce que moom moom mënoo ko ko nit ñi moom mën nga leen a dóor ay kii waaye borom bi mënoo ko ko déedéet waxuma la borom bi malaaka yi la wër rek mënoo leen koo def loo nekk ñi ngi ko xam moo tax ki bëgg bo boroomam xaritoog moom li mu war a njëkk a def mooy bàyyi xel ne am na ku koy suivre ko xam ne mënu koo làqatu koo xam ne laajul sax nga def mu door a xam wala nga wax mu door a xam waaye la nga xalaat ci sa xol sax da koo xam avant nga koy xalaat moom day xam ne sàngam bu jotee da xalaat mbir sàngam kooka nag kon boo bëggee sa xaritoog moom dëgër na nga doon ku dëggu sa digganteeg moom looy def na nga ci am ak dëggu ne moom dongu tax ngay def genn jaam yàlla du bu leen dara jaral nga di ko def te fekk yàlla dongu taxul sa mbëggeel ci yàlla lu mu gën a dëggu sax loola gën a dëggu parce que dangay dem ba yàlla dong nag ngay moo lay saf yàlla dong it ngay bëgg yàlla dong it ngay bëgg ak payam moom ngay moom ngay ragal amee kon mbindee fi seen bopp sax dootoo leen jox importance boobu noonu parce que taxuñ laa jóg far looloo tax nga mën a làqatu ci sa néeg fu la kenn gisewul yow ak sa borom dong nga def fa xeetu jaamu yàlla yoo xam ne te kenn du ko mës a yëg parce que yàlla ngay jaayanteel direct booba soxlaatoo mbindeef di yëg sax say say jëf la ngay def ci lu baax soxlaatoo mbindeef yëg ko la ngay def ci lu bon it dalay leer ne bu ko nit ñi yëgul it yàlla nga koy yëg boo ay tax dañ koy teel a bàyyi parce que nag yow yàlla ngay jëflanteel yoon woowu ku ci aw moom léegi nga doon xaritu yàlla ndax yàlla kat bu ko bu xamee te xam na la nekk ci sa xol bi ne yow ku dëggu nga ci sa bëgg xaritoog moom mu daal lay jàpp fekk dëggu googu amul nag moom moom yàlla moom ku dëgguwul waxul say mbir tara kon dëggu gi mooy ci ëpp solo ci mbir mi yàlla nañu yàlla may dëgg googu suñ digganteeg suñ borom yàlla nañu yàlla boole ci xaritam ya ya nga xam ne da leen di yëkkati barakallahu fiikum ahsanallahu ilaykum wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu لله في اليوم